العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله حق قدره مقدار العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بظفر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñi ngi gërëm ñi fi teew ñëpp ci ku ci nekk ci turam ak ci santam di gërëm suñu sang Cheikh Ibrahim ibn Cheikh Mahamadul Haadi di gërëm suñu nijaay yi fi teew yëpp suñu baay Cheikh Barham Niass mi ci suma càmmooy di gërëm Cheikh Mahamadul Bachir ci kàddu yu kawe yi mu fi wax tënkal nañu dund Cheikh Mahamadul Haadi ci digganteem ak alquran waaye jikko yu kaw yi nekkoon ci moom tabe gi nekkoon ci moom bëgg mbokk gi ak jokk mbokk gi nekkoon ci moom loolu yëpp ji ay jikko yu kawe kawe yoo xam ne daf ko doonee ci Cheikh Ibrahim di gërëm bu baax xalifaam bii di taawam Cheikh Ibrahim mi nga xam ne mi ngi teg ay tànkam ci tànk baay yi maam yi nekk taar wax dëgg yàlla ci jiil jadid bii nga xam ne moom la Cheikh Ibrahim doon formé te Cheikh Ibrahim Cheikh Mouhamadou Hadi bokk bokk ci modèle yi euh, bokk na ci modèle yi bàyyi doon tabax ci génération bu bees bii ndax ñoom période bi ñuy jàng ci début année 60 yi ci la bàyyi bindoon xasidaam boobu nga xam ne Pékin la ko bindee mu bari lum symboliser ndax ñu bëri jamono jooju Chine lañ doon xool ndax communisme bàyyi di wax ak ndaw ñi ne leen fama napoléonun aw léninun wa markasun bi muhan ilayhim xalli an ka xabaala napoléon ak capitalam mbaak révolution yi mu def ak wër gi mu wër àddina di ko conquérir rek Karl Marx ak xalaatam yu rëy yeeg genn wàll àddina yëpp dominé nañ ko ci seen xalaat nit ñi di roy ci ñoom ñoom ñëpp yàlla wax ci wax yu ci kenn yàlla yenentu yàlla muhammad la wax yu kon kuy roy na nga ko roy bàyyi wax ci ne euh, daifun alilun shaaibun mutaxammisun li yansura diinan laa yuridu qitaala maa ngi ma màggat maa ngi feebar waaye maa ngi ànd ak cawartaan ngir tasaare diine joo xam ne buggut xeex buggut violence ci biir xasida boobu bàyyi ngi ciy wax ne euh, maa ngi tukki tiim géej yi dëkk yu mag yi dëkk yu ndaw yi sonn lool waaye damaa bëgg a wan maas gu bees gi naka la ñuy liggéeyalee diine ci génération bi xam ne ci lañ nekk kon ñoom jil boobu la doon tabax gis naa beneen bayti boo xam ne yetiima la xasida boo xam ne benn way rek la bàyyi bind ko di wax ci jumaam ji naan la masjidun bi nuuril adimi tadakkuri laqad aksabal jilal jadida kamala mu ne jumaam ji ba tey exemple la dafay wan maas gu bees gi exemple naka la ñuy toppee yàlla waaye jumaa nu muy nekkee barabu socialisation ni muy nekkee barab boo xam ne dañ fay jëlee xam-xam boo xam ne danañu jëriñ ci diine jëriñu tamit suñu àddina muy génération yi njëkk a yóbbu ñu jàngi juróom yi njëkk a dem Maroc ak kuréel gi njëkk a dem Kaayra gannaaw boo xamee ne ci année 60 yi yow yónni na bàyyi yónni na délégation tripartite ñetti nit xalifa ah, alxaaj Abdoulaye Chérif Babali ak Oustaz Ibrahima Mahmoud Diop ñu dajeeg roi buuru Maroc Mohamed V ñëw indiaale ay bourse bourse yi njëkk a ñëw fii nii senegal pour doomi réew mi jàng ci bàyyi booleeko ci juróom yi nga xam ne ñoo njëkk dem ñoo njëkk a dem jàngi gannaaw boo xamee ne wattu na alquran wattu gu rafet Cheikh Mouhamadou Cheikh Abdoulaye Diedhi ba ci tarjama bi mu ko defal mi ngi wax ne bi muy tari alquran daanaka bés bu set buy tari nit ñi dañuy àndandoo rek moom dañuy dañuy dañuy jooy ndax ni mu ne alquran ak ni baat bi neexee loolu moom ku déglu gàmmoom rek da nga xam baat bu neex boobu ci moom li ma tiim bindam bàyyi la muy wax yaxal bés bi sëñ aadi gane àdduna Cheikh Mouhamadou Haadi ne juróom-ñetti fan la ci Chaabaan 1357 jigéenam bi tamit Sayda Roqaya juróom-ñetti fan ci Chaabaan la gën a gën a àdduna xanaa at yi am différence rek waaye benn bés bi la ak benn benn weer wi yaayam bàyyi mu ne ummuhu Mariam Ñang maam Mariam Ñang mooy waajuram bu jigéen moom it dafa am taarix ndax bés bi mu ñëw kër bàyyi mook maam ummi Ñang ci la bàyyi di bind xasidaam bu tàmbali diwaanam boobu mooy taysiru usul ila hadrati rasul bàyyi di ci wax naan fa atatu xubbal Moustapha duna gayrihi wala umma kalsumin walaw kaana ma umma kalsum boobu maam ummi ñang la Mariam bi di maam Mariam ñang mi nga xam ne mooy waajuru Cheikh Mamadou Hadi ma ne xam naa loolu mën nañ cee déggee alaaqa bu réy bi nga xam ne Cheikh am na ko ak bi am na ko ak siira ndax bàyyee ko sant muy gàmmu di gàmmu ci biir réew mi waaye bàyyee ko dénkoon si sikarkat yi ak ñiy tagg yenant bi suñ ba Cheikh Mamadou Hadi Cheikh Mamadou Bachir wax na fi léegi digganteem ak waa taabal ji ni mu leen daan teralee di leen ñëwal waaye man dégg naa ci gàmmu jëppal Cheikh Omar Fati Diallo di wax ci moom bay jooy naan ko yéen yéenay suñu njamal piis bu ma sañoon ngeen di naaw ngeen di ci jaww ji suñ Babacar Thiam tamit nettal nañu ne gàmmu gi mu njëkk woy fii nii laamiye bi bàyyi def ne kii kan la mu ne ko kii dey xale lu ñoom ñu kële boo xam ne suñu Omar a ko yar mu ne kii de dootu nopp jën bu subaa nag moo ko indil mu ne ca suba sa suñu aadi su moom moo ko indi ci bàyyi bàyyi na ko yaa ngi ci Cheikh Omar suñu Omar Fati Diallo mu ne waaw mu ne ko mos a tàggoog man yow de kon bul tàggoog moom dénk ko ko kon taxawaayam rafet na ci ci ci waa sira bi waaye boo demee ci waari daatul xarb ñaan yooyu bàyyi def bi guerre mondiale bi tàkkee tamit da nga gis bàyyi di leen ñaanal di ñaanal ay doomam wa allimil abna al ilma alzahira walbatin warzuqhum alxalaal altayib almubarak wa axsimhum min alfisqi wa xul baynahum wa bayn alkufaari ñaanal leen ba mu jeex bi muy lim seen tur yi da nga dégg alxaaj abdullah ahmad ahmadu cheikh ahmadu Mouhamadul Bachir Mouhamadul Nadir Mouhamadul Mahi Mouhamadul Hadi Mouhamad Taha ak Alxaaj Aboubacar mi mu tuddee Bayraaj Babacar boo demee ba tey ci kibritul ahmar diwaan boobu da nga dégg bàyyi di ñaan naan faqih quluba fitiyati fi diini bil Mustafa bi Ahmad al Quruni bàyyi yàggalee na ñaanal yàlla pour ñu dégg diina ji ci barke yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moo gën a sant yàlla ci maas yëpp diwaan boo dem daanaka da nga gis mu ñaanal doomam yi kenn du tabax tabax àdduna ba pare di desal gannaaw sa njaboot gi nga xam ne dañoo nekk say doom yi deret ba pare nekk say doom yi maanaa boo demee ci diwaan da nga dégg ba tey moom alayhi salaatullahi te salaamu takunu a ahli hudatan wa aliya mi ngi julli ci yenentu bi julli koo xam ne dana nekk di gindeekaay ñaal ñoñam ak waa këram nga xam ne kon toujours mi ngi leen di ñaanal di leen di leen di bàyyi xel bi leen bàyyi di yóbbu xaay la jàngi lettre bi mu leen bindoon nga xam ne lettre de mission la li mu leen digaloon yëpp da koy fekk ci seen jikko nee na yàlla dimbal na leen ragal yàlla la tàmbalee nee na mooy buntu lépp mooy buntu wërsëg mooy buntu xam-xam indi leen ay alxuraan yi ci root yëpp wax leen ne nit ñi da ngeen a war a am priorité ndax am na ñoo xam ne ñooñu àddina lañ yéen nag du ngeen ñooñu àddina yéen ñooñu àllaaxira ngeen wax bàyyi dafay wax ne aarif ah, amut àddina àdduna am la te àllaaxira àllaaxiraam yàllaa ko moom na ngeen góorgóorlu ci xam bu ngeen ñibbisee ci seen réew ñu am ci ay waarekat am ci métier yëpp ngeen jëriñ seen réew jëriñ àddina bi yëpp Cheikh Mamadou Haadi nag Cheikh Mamadou Haadi bokk na ci ñi nga xam ne dañ doon oote jëm ci yàlla bil xikmati wal mawidatil xasana loolu di métier boo xam ne mooy métier maamam waaye tamit mooy métier baayam bàyyi di leen wax ci lettre bi ne bu ngeen awee ci lii ma a yërëm yàlla amoon na ci moom ñoom cofeel gu mat sëkk te cofeel googu la maam alaaji amoon ci ay doomam dañ koo doon rek ndax boo demee ci xarfal yaa bu seerul qalbi ya umuri kaabi mahbatal waxi multaqa kataabi diinil haashimi la din taqa da nga dégg bàyyi naan alayhi salaatullahi tuma salaamu ridallahi an cheikhi aban kaana mushfiqa yàlla na yàlla gërëm suma sëriñ ba bàyyi joo xam ne daf ñoo bëggoon te yërëm ñu lool yërmaande googu tamit moom la bàyyi amoon ci ay doomam Cheikh Mahamadul Amin baaba nee na ma biñu nekkee keer euh, biñu nekkee Maroc di jàng bàyyi ñëw na fa ñu fekk mu sedd lool te fañ nekk amut chauffage mu ne bàyyi hôtel la leen yóbbu fay ko ba hiver bi jeex fayal leen ko pour ñu nekk hôtel di xëy di jàngi ci école ba ñuy jàngee dëgg-dëgg loolu mooy bàyyi ju yërëm waaye mooy bàyyi joo xam ne ku fonk xam-xam la Cheikh Abdoul Hadi nekkoon wéttalam nekkoon compagnon de voyage mu ànd ak moom ci tukki yu bëree bëri gis nañ bàyyi ànd ak moom aj ba pare jaar Quds boo demee ci xasida boobu ma doon jàng ba léegi xarfu yaa da nga dégg bàyyi naan wa arrajtu lil qudsi sharifi wa baadahu saraytu li barham alxalili muwafaqa alayka ya barhamu baada muhammadin salatun wa nga gis photo ba ci buntu mas ci Jérusalem ci buntu nga taxaw ak Cheikh Abdoul Hadi ak maalam Sani Kafanga ànd naag moom Mauritanie ay yoon am na ci boo xam ne dañoo seeti taalibe yi boobu moom cheikhaani yaxal na ko ci biir diwaanam li cheikhi uhdi wa uhdi libni ilhaadi taxiyatan ka abiril miski waljaadi taxiyatan mustaqimun aslaha wa asa biha yuqawamu inda allahi mun aadi wa baadu faltaalama anni bi xubbikuma qalbi bi waadin wa kulla annaasi fi waadi in antuma ayuha cheikhaani dammakuma baabu siyaadati fi nusxin wa irshaadi dafa boole si suñu aadi ak Cheikh Mamadou Alhaaji ak Baye tàppe leen ñu nekk benn jëm mu ne yéen yàlla moo leen boole soobandoor leen ci Euh, buntu baa moom mooy bunt ak cang ci oo nit ci yàlla ak ak di leen jubal ndax Oustaz Ibrahima Diouf dafa wax ne benn waaye daf ko laaj ci pays yi ne ko lu tax Sénégal bëree nii jullit mu ne ko gàmmu te sëñ Adi Cheikh Mouhamed dafa bokk ci ñi nga xam ne dañoo vulgariser gàmmu ci biir réew mi Cheikh euh, euh, Camara di grand communicateur traditionnel bu nekkoon Gambie nekkoon Talibe Baye dafa doon wax ne mu ne dafa ànd ak Cheikh Mouhamed benn dëkk ñuy gàmmu. mu naan ku bëgg lislaam bi ñu jeexalee ku bëgg lislaam ku bëgg lislaam kenn ñëwagut mu ne ko sëñ bi sa baay tubal na ñëpp may ñu wirdu ñu ñibbi sa baay tubal na ñëpp loolu dafay waree ne gàmmu méthode la woon boo xam ne daanaka moo tasaare lislaam ci biir réew mi waaye bu gàmmu jeexee da nga gis ñii oo ñi bëgg lislaam di leen tubal buñ ca paree nag doog ko oo ñi nga xam ne bëgg nañ tariqa tijaan ànd naag baay beneen yoon ca Mauritanie tukki boo xam ne euh, ictimaa sulaasi lañ ko tuddee dajee woon diggante roi Hassan bu Maroc ak hawaari bu may jën ak wuldaada bu Mauritanie ñu oo bàyyi comme expert ak koo xam ne borom xam-xam la bu rëy xam-xadiya bi ñu doon ndox mooy saara bi nga xam ne ñu ngi ko doon xëccoo bàyyi ñu yónnee bàyyi jet privé mu ànd ak moom Mamadou Hadi dem foofu ci nuwaate bu dajeeg président yooyu noonu loolu tamit bokk na ci rôle yu rëy yi nga xam ne euh, liggéeyal na ko lislaam liggéeyal ko Afrique ànd ci ak Cheikh Ibrahim laa mu nekkoon diplomate nekkoon koo xam ne dafa dégg àddina bari na ci nit yi nguur yi xam ne dañ ko bëgg sopp ko ndax dal gi nekk ci moom ak yaatu ak ubbeeku gi nga xam ne nekkoon na ci moom looloo tax bàyyi lu mu sos rek boole na ko ci ba ci groupe bi mujj sos sax muy gérer ittihaadul islami afriqi muy union islamique africaine lettre bi mu ci bind bi ma tiim nii mi ngi wax ne mi ngi exécuté euh, di wéyal li nga xam ne ndaje mi def nañ ko di wane ne Cheikh Mamadou Hadi mooy ki nga xam ne mooy commissaire commissaire au compte na amee carte yi nga xam ne moo aju ci mbootaay gi ak képp koo xam ne bindu nga ci euh, ñu mën ko ko indil moom bàyyi mu mën di ko xool ànd ak dal xam naa jublu ci rek bëgg a ñaan ñaanal ñi nga xam ne ñi ngi góor góorlu ci li nga xam ne mooy projet yi nga xam ne moo moo moo ŋànk xadara bi yëpp suñu bàyyi Cheikh Amadou Bachir wax na fi euh, rafet ak jëflante bu rafet boo xam ne doxoon na digganteem ak mbokkam yëpp waaye maa ngi gis tamit ci gëstu yi tournée boo xam ne bàyyi ebaloon na ko ci Afrique dèjà mu war Afrique yëpp Sierra yoon Ghana ba Libéria bi muy dem Sierra yoon bàyyi ko jox lettre mu xat adressé ko mu muqaddam ya fa nekkoon yëpp ñoom Ahmad Traoré ak ñooñu ne leen bu mu fa yàgg nag na gaaw ñibbi si xam naa ne mi ngi ko soxla fii waaye ba mu fay jógee rek jëm ca euh, dem gaana pare dem Libéria télégramme yi ñu bind ci tukki mi yëpp ñu bind ko bàyyi mi ngi nii ma tiim jotaay bi dafa xat rek ba duñ ko mën a jàng te yu ci bëri ci anglais lañ ko def ku ñuy wax Adolphe Tolbert di pré doomi président yi Libéria moo ko bind bàyyi ne ko sa doom Cheikh Mamadou Hadi yónnee nañu télégramme ne mi ngi ñëw euh, gannaaw loolu mu ngi naan ko oustaz Ibrahima Mahmoud Diop ñëw na fii ànd ak rabita alam islam yi moom mu ne moo la teewal ci délégation boobu dañuy wër Afrique yëpp fii lañ ñëw nee na ma dafa ñëw euh, pour jaar fii jaar Sierra Leone wër Afrique yëpp fu ci nekk war nañ fa def waxtaan def fa def def fa conférence kon daal ci gàttal loolu mooy li nga xam ne mën nañ koo junj ci liggéey Cheikh Mamadou Hadi xam naa ne du ñàkk ñu am yeneen force yoo xam ne danañ mën a gën a yaatal bu baax a baax di ñaan yàlla taas ñu ci barkeem yàlla guddal fanu xalifaam bi Cheikh Ibrahim yàlla dëgëral ko yàlla nekk ndimbalam ci zaahir ak ci baatin wa maa zaalika alallaahi bi aziz assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu